jërëjëf Touré bisimilah nañu may waa kër Bassirou Ka yi ñëw may leen loon noonu noonu ñoo may leen loon noonu yéen ñaan rek seen Touré ngeen toogee nii Bacary nañ ñëw waaw la jëf internet yu Dakar live mbokk yi xam ngeen ñi ngi fii ci Midinatu Salaam tey ci 17 ah, avril. ki nga xam ne mooy Basirou ko fi joxoon ndigal. fu ne nii nag sëriñ bi si jëm boppam yeneen sëriñ bi. mu ne nag ndigam yéene sëriñ bi yow sëñ xaadim ne ñu laax bi na ngeen ko tibb ba mu baax yóbbul ko sëñ Saal ne leen ko ñam naa ko neex na moo tax ma ne ni ko ko tibbal andil ko ko waaw baro waaw yi ni nga ko xamee ki nga xam ne mooy sëñ Saaliw ndigal cuun mu Cheikh Béthio ziyaare si ki nga xam ne mooy Serigne Sall ndigal Cuun Basiiru Ka mu Cheikh Béthio Basiiru mu sëñ Sall ndigal mooy ñëw di ziyaare si ki nga xam ne mooy sëriñ Saaliw ndigal Cuun mbokk yi ni leen ko waxee nag internet yu Dakar live ñi ngi fi tey ci Midinatu Salaam bu ñu waxee Medinatu Salaam nag day day day dañuy fàttali daje bu yàgg boo xam ne ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Béthio Thioune yal yàlla yàlla yokki leeram daje boobu mu daje woon ak sëriñ Saliou tey mbokk yi moom lañuy màggal fii 17 afril saa yu dellusee dangeen gis bi mu fi nekk ci ak dundam ni mu ko daan màggale waaye ngeen gis bi mu fi bawoo ba léegi njaboot gi ni koy taxawe sëriñ Sall ndigal Thioune nekk ci bopp bi mbokk yi. 17 avril. acca joxal joxal. Euh, jërëjëfati Serigne Saliou Mbacke jërëjëfaat Serigne Saliou Mbacke Serigne yàlla na gën a saawaan ci ñun mel na ni kàddu yi moom motewu ko woon sax waaye day mel ne eh, sunu sang bi di Serigne Saliou ndigal ci ñun amuñu fayam. ñun njabootu sëñ Béthio amuñu fayam ndax ñun moo ñu dimbali sëñ Béthio moo ñu tabax waaye moom daa ñëw mu jël ñu taf ñu si boppam def ñu nii mu ñu def ci yërmande ji moo tax it mbégte rek la ñu waxee ñu àndoon ak euh, Seydou Nourou mu waroon fi ñëw tey moo mujj ñëw mu yebal ki nga xamante ne mooy Thierno Rasoul Diallo di boppam di bokku néegam di léppam di bras moom moo ko moom moo ko yebal fii ma àndoon ak moom ñëw ziar si ko incha allah di ñaan sëriñ bi mu ñaanal ñu 17 avril bi bu déwénee lépp luñ ci def mu yokk ci barkeb sëriñ Saliou damay wax ne bépp cantaakoon ak bépp jullit bu ñëw bu yeew na ñaan sëriñ Saliou ndigal ci woon na fi yàgg loolu na ko ñëpp di ñaan saa bu ñu ndax sunu sak la sunu tawféex la sunu yaakaar la sunu lépp la ñun sunu lépp ci moom lañ ko yaakaar kon yàlla na ko yàlla def di jéggalu bu baax ci kàddu yi. asalaamualeykum. asalaamualeykum. asalaamualeykum. asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu. maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp maa ngi seen ci délégation bi waa waa waa waa waa Ndakaaru lébu yi Ndakaaru yépp maa ngi leen di seen maa ngi leen di nuyu waaye balaa booba maa ngi nuyu ak di tatagal eh, Rassoul Diallo bi nga xam ni moom la fi euh, Seydou Nourou imam Seydou Nourou yónnee Thierno Seydou Nourou maa ngi koy ziar maa ngi lay nuyu te di wax sama mbég ci dalal la fii dalal fii ndax fii sa kër la kër diine benn la kër maam Thierno Seydou Nourou Tall ak kër maam Borom Touba lépp benn seen ñëw bi nag neex na ndax day mel ni jaxasoo bi taxu ko woon a demee noonu waaye jëmm ji nga xam ne mooy Bassirou Ka di taalibe ci kër gi te doon deretu njaboot ci kër gi e, tax na diggante bi am lu ci tàmbalee am te loolu ñu mébatoon ko bëggoon ko maa ngi bëggoon fan yëpp yàlla xam na ko lu may def ba agsi ci njaboot bi ndekete booba man am naa buntu bu gaaw si lé ñëw bii nag daf maa soññ ci ma war a gaawantu mott lu yéene jooju ma amoon mooy daal di tabb ci njaboot goobu dinaa dinaa ànd ak moom danañ ko waajal ma ñëw nuyu si ko ndax lii mu def rëy na ci man rëy na ci man sedd na sama xol sama xel dal na ma sama dal na bu baax a baax a ci ñëw bii ngeen ñëw fii waaw li nga wax dégg naa maa ngi lay sant bu baax moom na fekk nga ñu dénkoo ko ba noppi moom Basirou Ka moom day àndoon na ko ak sunu waajur ñu ràññee woon ko ci lool bi muy ànd ci sëñ Béthio bi muy jébalu ci moom boobu gën na fi nekk ndaw ànd bi day mel ni ñëpp xam nañ ba mu noppee gis sëriñ bi ci saay yéeneem ci moom mottali na ko ci man mottali na ko ci njaboot jàmbaar la ku ci li mu nekk ku am diine la te loolu rek mooy li nga xam ne moo am solo moo tax bettuñu mu bokk foofu benn la maa ngi koy sant bu baax ci yoon woowu mu ma may ba mën a jaar ci loolu yow fekk si incha allah dinaa ci waxtaan ak moom dinaa fexe nu ñu nu ko gaaw defe sax ndax sama xalaat ak sama yéene mooy mooy léeg-léeg sax bu ma rombee ci corniche bi sama xel am na benn ajuma boo xam ne damaa taxaw falaa ko jullee ngir rek am yéene pour am bunt bu ma jaar ba mën na ba mën a ba mën a agsi léegi nag bunt bi nag moom moom leer na waaw suñu borom boo bëggee lu baax te te bëgg ko sellal ko kon nag buntu boobu am naa ko léegi loolu moom bu ñu jógee ci lii rek na nga gaawantu nu daal di koy def waaw maa ngi leen di sant bu baax di sant délégation bi mu àndal yëpp waa kilifa yi mu àndal euh, ñëw ci bis bii nga xam ni mooy bisub daje bi daje sëriñ Béthio ak sëriñ Sall muy bis boo xam ni sëriñ bi daf ko fonkoon sëriñ bi daa te moom day dundam yëpp jox na ko sëriñ Sall jotam ak yitteem yëpp defoon na ko ci sëriñ sax bis bii da koo fonkoon daan na def bu jubee da koy xam ci moom ak yëngoom ci bis yi tax na àdduna bépp léegi xam bis bi mooy lan dix-sept avril léegi def nañ ko mu doon bis bu ràññeeku boo xam ne ñëpp xam nañu kon nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant yàlla ci seen ñëw bi tey sàkku ñaan maa sàkku ñaan sàkku ñaan bu baax a baax a baax a baax ba yan ak sa barke maam ba liñ ci yéene suma salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama taslima bi barakati Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ashaabal fadila ixwaani axawaati fillahi assalaamu aleykum wa rahmatullah barakallahu sëñ bi ñu ngi leen di nuyu bu baax gis nga nitu yàlla buñ la yéene da ngay am bachel maag sëriñ bi boobu ba léegi ñu ngi fi toog man Alpha Aliou mooy sama maam. dégg nga moo doon xaar ñu ko dal. baayam ak baayam ak Aliou Diagne ñoom ñoo ko kon man njabootu Cheikh Amadou ñoo jëbbalu si sëriñ sëriñ kon ngeen gis nga sëriñ bi léegi mu ne dama am tontu ma leen. gërëm bu ci lenn nag xam boo ko jëfee bu fi tellee mooy tax nga egg ci nag mooy yàlla nangu la bu la nangulee nga doo koy am ngërëm étape yu sow yàlla boobu nag moom la Sëriñ Tuubaa yoon jox ko Cheikh Béthio mu tàbbil ko ci sëriñ kon seen teewaay fii Cheikh Omar Sëriñ Moussa Ka ngi dégg léegi Bassirou Ka Cheikh Serigne Moussa Ka dafa ne Cheikhu Umar futiwu ak ñëwoon Bawol seede si mbër mi xalafan see ko waaw gannaaw ba mu nam salmatee fa màkkata lañ ko fa wax moo tax mu dellusi si di bàkkata maanaam Cheikh Umar moo njëkk a feeñal Serigne Touba ñëw Bawol wax fa lam fay wax ba dénkaane fa kaamil bi ne sëriñ bi bu ñëwee nañ ko ko jébale kon seen jéego yi ngeen fi ñëw yu yell fi ngeen tàbbi nag ngërëmal yàlla moo fi nekk ndax ngërëm luy jokk la li tax mbooloo Ah, buon colonnello. Ah, ah, excellent. ba dara jotul tubaarkal ah sëñ Mansour jërëjëf kontaan naa kontaan naa dégg naa sama xol sedd na jërëjëf alors am sëñ Mbaye Dièye Mbaye Dièye ñëw dafa topp Abass waaw yàlla na ci ak wér topp yàlla na ci ak wér topp Abass waaw ñeent yooyu yàlla daf ci wax loo ne moo nu andi daf ni ñeent ngi ne ku ko ku ko bàyyiwul xel doo jóg ci coono te koo àndal dana am coono bi ci jëkk mooy nangu dogal sant ci xéewal muñ natt yi te doylu noon nag danoo nangu dogal sant ci xéewal yi Cheikh Béthio loolu la daloon mu ñëw dëkk ak lébu gi fonk leen bëgg leen jox leen cër jox leen ak kon soo fi toogee di doomam sëriñ mun Mountakha wax li mu wax àdduna yëpp dëkk ko mm. te ñun ñu di ay jullit mm. di ay taalibe mm. di ay bokk foo nekk ñu fekk la rawatina bi nga yëg boo ñu teguloon fenn duñ la teg fenn waaye cër bi nga delloo lébu gi nag lébu gi yëg nañ ko jàpp nañ ko teranga yi nga indi gis nañ ko moo waral tey jii mën naa la wax ne fukki penc ak ñaari Ndakaar yu ñuy wax wala man la téeméeri penc ak ñaar fekk benn ndax ba jandeer ba tubaab jalaaw délégation oto yaa ngi ci bunt bi te yàlla rek si jëmm rek tax ak jëmmi sëriñ Béthio ma doon ma liggéey liggéey bi ak jëmmi sëriñ Sall kon nu ngi ñaan yàlla yàggal la fi yàlla taxawu la yàlla yokk sa sutura yokk sa xéewal ci barke seenam loolu nag ci turu loolu daal ci gàttal foofu la ñuy yeman ba ci kanama di jërëjëf ci kanam sëñ Bass Abdou Khadre mu ngi ñëw waaw boo ñu def cérémonie jël ci ramé bu ko defee na après ma toog jax ah waaw ah? kay waaw jërëjëf Thank boo ko joxee kat boo ko joxee kat da mel ne ni dox nga lépp jot kat ñoom ñu ci ginnaaw. waaw léegi da ngeen di xaar ba ba ba nu ngi leen delloo ziar. tey nga ñëw fii 17 afril ci Médina Salaam. fekk si ki nga xam ne mooy sëriñ Saliou ngi digal Thioune. seen kóllëre jëkk ak yan kàddu ngay dégtal ñi lay seetaan. Euh, fi mu nekk nii mbokk kontaan na parce que Cheikh Béthio sunu xarit la sunu dëkkandoo la lébu la parce que abon def na def nañ ak moom. nan nan dem rek fu mu nekk nii ñu ànd si jàmm mu ponk lébu ngoon tey buñ ko xewalee ju baax ji di Serigne Saliou téye noonu war nañoo téye waaw. xalif général teew fii ak na fa teewee sagal sëñ Béthio sagal ak njabootam sagal yoonu murit mbàkk keroog boobu yi ak tey jii xam nga ne li nga fekk fii tey wute na lool ak bis booba te lépp sab liggéey noo ngi sant sant koo xam ni lott nañu ci wax ko lott nañu ci jëf ko dafa mënta ñàkk ma yëkkati ay kàddu ci ndigalul Serigne Saliou ndigal wane mbégte mi nga xam ni njaboot gi am nañu ko ci seen teewaay du ma guddal ndax kat mel na ni sëñ Sall dani ma dangay da rek bu ko defee ñu présenté kilifa yi fi teew yëpp mbàkki nga xam leen ndax kat. loola kat lu jaadu la ndax àddina sëpp fu ne waay jóge na fa ñëw teew ci bésub sëñ Béthio bi ñu présenté la ñëpp délégation yi fi teewoo Cheikh Alsane Sène mi ngi fi teewoo sëñ Taïba Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall waa kër Thierno Seydou Thierno Seydou Nourou Tall imaam yi jaraaf yi sëriñ Maodo Cissé waa kër Alaaji Amat Njëgën waa kër Karim Meïssa Wade honorable député Mame Diarra Fall Mame waa kër Cheikh Oumar Tall Cheikh Oumar Foutiou Tall imam Mame Cheikh Niang sëriñ Cheikh coro moom sëriñ Baara fi la yendu sëriñ Mourtala Mbacke moom sëriñ Fallou ak njabootam yabal na leen fi ñaar fi la ñuy yendu soxna Moumi ak soxna Waalo Mbacke yable nañu fi yable nañu fi ay bagages ak lu lu bare bare bare ci ay teraanga. lu toll ni suukar ak café lépp luy ay teraanga yemal nañ ko fi yëpp yónnee nañ ko fi Babacar Guèye bu premier ministre Amadou Ba sëriñ Abdou Karim Mbacké war makari mal axlaa njabootam gépp a ngi fi délégation xaban tund xaban wi cinquante deux villages yi ci jiitalu sëñ Moussa Diagne 52 villages yëpp teew nañ fi sëñ Soy bu Cissé sëñ Saliou Diakhaté sëñ Saliou Silla mboolem dongoy tërbiye yi teew nañu fi imam Nior bu HLM maam Cheikh Niang waa kër El Hadj Omar Ndiégane ca Thiès. xarit yi ak soppe yi ak mboolem jëwriñ yi universel yi sëñ Taïba Fall sëñ Ablaye Seck bu CDE moom day mënuñoo matal ñëpp waaye kat Mbàkke dañoo xam ne ñi fi ñëw ñëpp bés bi rek tax ñu ñëw fii te boo fi teewee yaay suñu bàyyi yaay suñu sëriñ yaay yaay lépp ci ñun te lu topp lu tàbbi ci seen nopp yi rek mbàkke lépp barkeel loo yëg lu fi waay indi woon ci aajo bu tàbbee ci bu bu ci yéen rek lépp baax maa ngi leen di sataat bu baax di ñaan ci barkeb Serigne tubaa liggéey bii nga yenu di liggéeyal Serigne Touba yàlla na leen Serigne Touba woyofal yenn bi dëgëral leen yàggal leen fi wéral leen mbakke ba lu ngeen lu ngeen soo lu ngeen soogu rek mu yomb ci yéen ngeen def ko lu ko seen njort ci barkeb Serigne baa seen maam sagu nanu ah Mbàkke ku dikk fii keroog ba bis ba fii ñëw di samp si Serigne Saliou ndigal keroog ba ngay dikk fii di samp si Serigne Saliou ndigal ah bis boobee ak bis bii barke Serigne Touba wute na. yaay jàmbaar Mbàkke yoonu murid lépp sagal nga leen jërëjëfati jërëjëfati kon na ñëpp maase ci déglu Serigne Saliou Sylla jërëjëf sëñ Xaadim wax nga lu baax ah léegi nag damay jox kàddu sëñ imaam Serigne Saliou Sylla muy wax ci turu Serigne Jiili sëriñ Jili moom sëriñ Cheikh sunu sànn ko ñu ñaan mu yàgg fi tëwër jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina maulana muhammadin almabxuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi sëriñ Saliou Ndigal Tour nii ak i bokkam ak i xaritam ak i wëllëreem ak i taalibeem ñi ngi jël nuyoo boo xëyee benn nuyoo yéesu ko benn tolluwut ni moom benn nuyoo ëpp ko yéesu benn nuyoo benn nuyoo tolluwut ni moom nuyoo boobu ñu ngi koy jagleel xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu a mottali a jigal joxoon ndigal ni ma bépp jotaay boo xam ne ndawal sëñ Cheikh néew na fa. man ni ma loolu man mi xam naa ci dara surtout fa ndawal sëriñ Cheikh teew rek ne doona du fa ndaw moom mii sëriñ Cheikh ci boppam itam ci digg mag Cheikh Mouhamadul ak képp ku fi nekkal sëriñ Touba di ko organisé ay bis ne dem na fa bis boo xam ne jox na sëriñ Cheikh téléphone Cheikh Mouhamadul Mountakha bañ wax wax ñu waxtaan lu yàgg suñu seex dafa am ci moom yéene daf ma ma ba mu xamee suñu seex te ba ñuy ndaw laa amoon ci moom yaakaar am ci moom yaqiin kon nag sëriñ Jiili boo fi teewee teewal fi sëriñ Seex teewal nga fi sëriñ Mouhamadou Mountakha xëy na moom mii ndigal moo koy yëkkati ndax waroon naa ñëw waaye xooteew yow mi jëru mu di fa ñëw waaye Cheikh Mamadou Mountakha ne mi ngi lay sant yow Serigne Saliou ndigal tool di la gërëm te la ca mooy bis diggante ak Serigne Cheikh ndax gis na ni la sa waajur defoon digganteem ak Serigne Saliou da nga koo yokk tokki woo benn ba Serigne Cheikh Saliou am nga ko léegi te yéen wax nga ko léegi ndax sëriñ Cheikh du yóotu dara sëriñ Touba daf koo doy ba bëggul dara lu sëriñ Touba ba jamono mettee sax nii mu doon doxee rek loolu doxee mës ta soppeeku ci la yar njabootam itam te néew na itam xew-xew yu mel nii mu di ci yónnee ndax moom loolu du aw doxinam ndax moom ci postéef ak lu sell ak bañ a ngistal loolu lay doxee ci lu ne kon nag li la may lii mooy sa pastéef ak sa taxawaay sa diggante ak sa waajur ak sëñ Saaliw kon nag kàddu yi na xam ne sëñ Muntaxa wax na la ko nee sant na la gërëm na la la ci jiitu mooy li nga def sëriñ Seex rek nee moom wetu boppam du ko ndax kàddu suñu taxaa la kon nag ne daanaka li mu waroon wax ci soññee ne man mi doon wax jottali naa ko xam naa ndax nee na xam naa diggam ak Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ndax Serigne Cheikh fi mu ko teg mënu ko misaal kenn gi mooy màggal Porokhane gi jàll bu yàggul dem naa ko fekk ko fa moom mi kon xam naa ca dara ba mu ubbiwul Serigne Bassirou mi la jox ndigal ni ko demal fa ma daan toog daayira yëpp nañ la siyaare daayira yëpp siyaare ko te loolu mooy li gën a tuur te lii la tax ma di ko wax ñëpp dañ a tuur diggante ma moom nee na naa te fonk na leen ni fonk goo xam ni raw na diggante nit ak waajuram kon nag mi ngi leen di sant bu baax ok kon jotaay bi yàgg mi ngi ñaan jataay bi yàgg am lu yàgg koo dox sëñ Abdou Khadre nii mu yabal itam ak rakkam yi ak magam yi nee ngi leen di sant ak bu baax ndax yoon wi suñu waajur nekk mooy sellal ak pasteur ak islam wàccu leen ci loolu rek ngeen nekk ngeen gis leen wala nga dégg te leneen ci la ñu doxee loo la seen waajur leen fenn soxla wu wax naa nga xam nga ni ñëw nga ci lu metti ci yow waaye nag ab tër bi ni ko sëñ Tuubaa misaale ki nga xam dafa bëgg ak siiw kooku bokk na ci tarbiyee ko fexe ba muy nëbbu géemal ko ki nga xam dafa bëgg lekk ñu xiifal ko marloo ko bokk na ci tarbiyaam waaye ki bañ mbooloo boo ko fa yóbboo ngir jaamu yàlla ak tarbiya la ci moom alhamdulilah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. sa ndigal am na ay wëllëgee yu si nekk yoo xam ni maa ngi leen di tudd ci njàlbeen bi muy Cheikh Alassane Seck moom laa moom moo nekk nii ci sa ci sa ci sa ndeyjoor ak honorable député Mame Diarra Fam ak ñeneen monsieur le maire de Malicounda mi ngi doog di agsi moom moom moom euh, waaw ñu may wax ni ma président de la république yebal na fi ab délégation Serigne Cheikh Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak ñi mu àndal ak Ngagne Demba Touré monsieur le maire de Massar Alioune Alioune Kébé Adama Sarr soxna ma dikkee Mbacké defal daal loolu loolu kon bu ma waxee ba pare ma jox la kàddu moom bi maa ngi Touba ma xam ak ma xam di leen nuyu di tàmbalee nuyu ci Serigne Touba ak Serigne Serigne Taxa ko ñaanal mu yàgg fi tëwéer ndamul lislaam ndamul murit yëpp moom day ñu ñaan di fas ci barkeb bis bi ndax bis bi kat ci subaak léegi jàng nañ fi ay lim ci ay kaamil lim yu paree pare li ma ci fas lu mooy moom mu yàgg fi tawér moom Serigne Cheikh sama mbégte ak sama xol bu sant xam naa ne dina tax ma nott ci la ma bëggoon a wax lépp ma wax ko sax waaye seen teewaay bii rëy na ci la rëy na ci man lool rëy ci njaboot gi njaboot bu Seex Béthio ñëpp a ngi fi samay rakk yu góor ak yu jigéen sunuy waajur ñu ngi fi ndax seen Béthio bàyyi am na fi rakk ñu mbokkal ndey ak bàyyi ñu koy wax Modou Fall Thioune ñu ko tudde sëñ Modou Fall Lat Seen bu kóol mi ngi fi ñi nga xam ni ay mag yu jigéen lañ ci sëñ Béthio yu góor ak yu jigéen ñëpp mi ngi fi ay jarbaatam ñoo xam ni seeni waajur ak sëñ Béthio ñoo bokk ndey ay ba ndey ak bàyyi ñu ngi fi soppe yi ñu ngi fi wëlëre yi ñu ngi fi taalube yaa ngi fi Euh, li may jëkk a def nag mooy euh, sant sëriñ moom sëriñ Cheikh sant ko cant goo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu àddina bi yëpp gis nañ teraanga ji mu fi yónnee nag yi nag nag fii de ñu ñu tàmm ñu tàmm jëndi nag lañ ndax day mel ni sëñ Béthio ku ko xam xam nga ni ci jënd nag dañ ko xamal am ay nag yu rafet waaye nag wu taaru wu rafet li fi Serigne Cheikh yónnee li ñu am ci ay nag ak xam ko ci ay nag am nañ ko ba tey waaye nag wu ni rafete moom amaguñ ko waa defe ni dañuy comme foofa xam naa nag ya dinañ fa bari nañ ko tànn yóbbu ko fa teraanga ju mbat teraanga rafet lool taaru ñu bind ca tànk ba Serigne Saliou Saliou loolu loolu loolu ku mu doyul xaw ma lu lay doy mu jógee ci Serigne Cheikh ci ku toll ni Serigne Cheikh ak nañ ko xamee ak nañ ko miin mu ànd ak ñun def nu nim nu def te jubluwu ci lu dul dimbali ni ndimbal loolu nag yëg nañ ko te ñu la koy seedeel yow mi fi Serigne Serigne Mountakha yónni nga teewal ko fi teewal fi sa bopp dinaa boo fi teewalee sa bopp teewal fi Serigne Mountakha kon teewal fi njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi lay wax sunu cant jëme ci sëriñ boobu yi di sëriñ Cheikh sëñ Tuubaa dimbali nañu ba bëgg nañ ko sopp nañ ko yaakaar nañ ko sunu ndimbal yaakaar nañu ko ci kuddul moom ñu ngi ñaan mu yàgg fi tëwéer ko sama xol sedd na xol bu njaboot gi sedd na ci noonu yi mu ànd ak ñun noonu mu ànd ak njaboot gi fexe ba dara yàqu loola nag mënuñ koo wax ba yàggal te tudd ñu leen ci yéen sëñ Bass Abdou Khadre ndax kóllëre gën a amoon ci sëñ Béthio sëñ Béthio teerul na la fu nekk fekk nga ko fu nekk fekk nga ko këram moom ci boppam fekk na la fu nekk ànd koog ñun ba ngeen noppee gis ko ci saay woo kóllëre googee gépp mottali ngeen ko ci suñu jëm sëñ Xaadim junj na ko léegi nee na keroog bi nga fi ñëwee ca demam wóote na ak tey wax na dëgg de keroog ba ngay xuus ci ci ci ci ci ci diggu mbooloo bi di jaar di agsi fii ñëw yëkkati sa kàddu yi tedd yi fi yëkkati keroog la tawféex tàbbi ci jaboot bi keroog la tàbbi ci jun ba nëgg na boobaa ak léegi nag bàyyiwu leen ci lu nuy sagal ak lu nuy dooleel rek ci ngeen ne walaay amoo jot na ci tey sëriñ bi nga ne yéen deesu leen gis fu ne bu ñu amee tawféexu ngeen ñàbb seen tànk yi ñëw ba fii ànd ko ak seen ji seen ji ci kër moom buñ ko fa tuddee buñ la nee la ah, war ngaa xam ne yow soññ nañ la. ñëwam bii ab soññee laa ko jàppe sama diggante ak sëriñ Cheikh ndax moom day ay caaxaan du ko jóg yëkkati sëriñ bi du ko yëkkati ci lu ci ci lu ne lii bu ko yëkkati nag daa xam ne yëfam ndax yëfi sëriñ Saliou waaw yëfi sëriñ Saliou sëriñ Cheikh moo xam lépp xam na ni bu ñu wàccee fële wàcc na ay yëfam xam na ne moom moo moom li fi moom li fi xam lépp dara génn ko ci ba tax na am naa ci catu bu rëy ci sa teewaay bii maa ngi lay yóbbante ci moom boo demee neex sa yónnee bii mu yónnee ci ñun jàppee nañ ko ab soññe rek moom daal lu ñu jàppoon danañ ko gën a jàpp bu fu ñu tegoon suñu tànk danañ ko yokk danañ ko gën a danañ gën a góorgóorlu danañ gën a xoolaat suñu doxi danañ ko gën a kennal ndax xam na ni moom rek ko jar maa ngi leen di sant bu baax du ma kàddu gi xam tàggaay yi day da da bari daa metti waaye daal na ngeen xam ni ñi ñëw ñëpp délégation la ñi fi ñëw te ba tax leen a jóg maa ngi leen di sant di leen gërëm danañ jox kàddu nag ki nga xam ne président de la république. ndax jotaayam bi day symboliser lu bëri day symboliser borom day symboliser tamit. ndax bi ko Cheikh Béthio daan dund nii la ko daal teewee di ko ànd moom kon bu ak njabootam di taxawaat bis bi mu ñëw ànd koog ñoom loolu day fàttali ne àdduna li ci am solo lépp mooy ngor rek kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu ànd koog njaboot gi def ko at yu bëree bëri barke Cheikhul Khadim Serigne Saliou ñu ngi lay indil nuyoo sa xarit sa doomu mbaay laa koy tuddee muy monsieur le premier ministre président Ousmane Sonko. ndax kër gi mën naan la doom la fi ndax diggante waajuram la woon ak sëriñ Béthio dina indil nuyoo président de la république président Bassirou Diomaye Faye te xam ne comme ni ko Seydina Ali Kébé waxee léegi rek bu tànkam féexoon mooy ñëw ànd ko yéen ndax Serigne Béthio toll na ko ci réew bi mais yéen ñii toll ngeen ko ci réew ndax lii ngeen def man na ne moom ngeen koy defal ndax bu doon seen bopp leen ñoo man ngeen a toog nekk fi ngeen nekk seen lépp di dox mais njaboot bi ku ko gis di ngeen xam ne li ngeen fii liggéey kenn mënutoon féeti seen place pour yéen ñi kon jàpp na ne ak njabootam ngeen te fas yéene ne ànd liggéey bu baax a baax a baax te yàlla mayuñ ci ndam seen njaboot kenn mënu leen ci seen njaboot taxaw nañ ci ànd koog ñun bi mu méttee seen njaboot taxaw nañ ànd bi nga xamante ni wéet nañ kon tey jii bu fekkee da ngay woote lu mel nii yàlla may ñu lii mu ñu daal yoon la ñu ànd ko yéen bis ndax bu tuddee ko ci mel ne Seydina Aliou Kébé nga xamante ni yàlla moom la jaarale bu ñëw fii taxawaay bii ñu taxaw kenn mënu ko ci parti bi muy France gam nekk ak Touba gi nga xamante ni fa la féete moo tax tey jii parti bi ñëpp ñoo amoon yéene teew ànd ko bis bi ndax Seydina Aliou en dehors de mot gi mu doon foo ko gisee sa xel ci li mu njëkk a dem mooy te maa ngi leen di seereel yàlla ne jëlum Cheikh Béthio teg ko ci kanam ba pare jël njabootu Cheikh Béthio gi teg ko ci gannaaw fi mu teg Cheikh Béthio fi la teg njabootu xam nañ ci li ñuy war maa ngir jëm ni Sëñ Tuubaa ku bokk ci Cheikh Béthio moo gënal fuuf lu mën a am ci àdduna kon buñ toogee fii day leen ko seereel bu baax a baax a baax moo tax ni ko Cheikh Béthio yara rek loolu lay doxee ba tax mu gis njabootu Sëriñ Tuubaa dina ko teral ndax ñun ñi fekk nañ ko fa mu nekk ci bitim réew mais war ma gi ñu jox yow mii boo fa ñëwoon du la jox war ma ñu ko ëpp kon loolu ñu ngi la koy seeral bu baax a baax a baax ba tax na tey sëriñ Abdou Mbacke moom ak ñun ñoo yennandoo këram bi mu demee ba am empêchement bu dañëw moo tax mu yebal soxna ndikkee nii di soxnaam di doomi Seydina Ousmane Mbacke président Ousmane Sonko démb déggante na ak moom wax ko ne ko bu subaa dinaa ñëw ci bis bii li ma njëkk a wax bu eggee nag ma nuyu sëriñ Sall xam ne kóllëre gis sama waajur amoon ak waajuram maa ngi ko ndamu di ko sàkku bu baax a baax mu gën ma ko teel di sàkku nag ngeen ñaanal président Bassirou Diomaye Faye ndax yan bi pour mu mën koo réussir il faut que Sénégal yëpp jàppale ko ci te jiitalul kenn bàyyi diine ci kon mu sañoon yéen njabootu diine ngeen ñëpp koo ñaanal yenn oyof te xam ne liñ ko dégg diis na diis koo xamante ni il faut que Sénégal yëpp jàppale ko pour mën koo réussir moo tax première sortie mu suwaan dem Touba siyaare bi xalif général des bi mu nekkee visite bi ñëpp gis ne ni suñu borom defee tawféex si Mountakha ñaanal ko mu ko mu jël ay engagement ci kanamu Cheikh Mahamadou Mountakha kon ñu ngi ñaan yàlla engagement yooyu mu jël ci kanamu sëriñ bi suñu borom may ko kawtal ak tawféex ba mottali yéene yëpp yéen tamit ñu ngi leen ñaanal yàlla suñu borom may leen tawféex ba yéen yi ngeen am ngir liggéeyal ko Serigne Touba liggéeyal ko Serigne Saliou suñu borom may leen kàttan ba ngeen yëkkati ko loolu laa amoon ci kàddu yi ma yëkkati pour gàttal ko di daaneel samay kàddu foofu wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa rahmatulah jërëjëf. jërëjëf Mbacke.